ilimaan jiwrin ya ànd ak jiwrin gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu finance ak jiwrin bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu kom waaye itam porte parole gouvernement bi ak it njiitu au conseil du dialogue social dalal na patronat secteur privé ba nag daal na ci profité ngir wax njaxre gannaaw xew-xew yi am fannile fii ci room Sénégal économie it mënula am te jàmm amul gouvernement bi ñu taxaw ci. maanaam ñii di bëgg a marché ak ñii di ñu seet nan lañ ko mën a defee ba du ba du yàq liggéey bi nga xam ne euh, moo fi ne ba du yàq alalu nit ñi. bi ñu reporté présidentielle ba ba léegi ay manifeste moom la ñuy nemmeeku ci réew mi ci juróom fan ci weeru février Macky Sall woote na ab dialogue maanaam ab waxtaan mu doon sax waxtaan moo xam ni Amadou Ba daan na ci invité secteur privé ba. du ñàkk benn waxtaan woo xam ne war naa tàmbali ci réew mi bu boobaa ñu leen di ñaan ngeen fekkee ko bu ngeen ko fekkee ni ngeen ko doon defee démb ak barki démb ci seen xalaat ngeen wax ko te lépp jëmale ci li jëmale lépp nag jëm ci li jëmale réew mi kanam. lu mooy jafe-jafe mi nga xam ne itam ñu ngi koy jànkoonteel gannaaw ay manifeste yi am ci réew mi patronat bu Sénégal di xam ne ne itam pression fiscale bi bokk na ci jafe-jafe yu leen gën a sonnal. li ñuy war a bàyyi xel mooy sénégalais di yëngul si koom-koom bi war nañ leen di jàppale mooy ñoom ñi administration war nañu li ñuy def lépp defale ko si secteur privé déglu leen. Ilimaan Judin ya nag di Amadou Ba daal nay dalal xel organisation patronale bu Sénégal ndax nag nee na gouvernement ba dina jël ay matuwaay yu mat sekk. ngir saafar seen i ay jafe-jafe jasaas ya sax la Amadou Ba instruire juriñ gi ñu dénk lépp jëm ci wàllu finance ak ki ñu dénk lépp lu jëm ci wàllug économie ñu taxaw waxtaan ak patronat bi di taxawal ab benn cadre woo xam ne li koy tax a jóg mu di dooleel entreprise yi.